ñëwoon nga def at dem takk kii indi nga def vingt at indi sa doom bi waaw. kii dafa la dee ak sama njaar mooy ñëw ak sa yeneen doom. waaw. te loo ñëw. lu gi liñ soxla mooy nga génn yaa ñoom ngeen dem. nga amal ñu kër. xoolal eh wax ji bul ko raay raayal xam nga lan la nijaay. Hmm. ñu dañoo sonn. Hmm. fii suñu kër baay la. Hmm. bu fekkee da ngaa bëgg kër yow sa njaboot. ngeen ñibbi ca dëkk ba wala ngeen génn luye gi ci biti ñun dañoo soxla suñuy kër soxla suñuy néeg soxla suñuy ay doom. waaw loolu lañ bëgg. ngeen jàpp gis ñun ñaar ngeen jàpp ne ay dof lañ. xam nga nag lan ngeen xamul ak jow mooy kayitu kër gi seen tur yéen ñaar ñëpp newu loolu ngeen xamul bañ ko changé yàgg na fi mu toll nii nag yéen yéen a war a régler wala ngeen génn parce que fu ma leen yóbbu kayitu kër gi sama tur lan parce que ba ñu xamee ni wéru leen àndu la nag seen sago kii réew na ba buccatiku yow wéradi nga ba këlbatiku ca la ñu jël kayitu kër gi man seen nijaay ñu def ko ci sama tur te mu demee la koo xaar yow gën ci yow koo xaar gën ci yow eh, eh, gën ci boo fii suñu kër la dana joxe sax nag. eh noppi. waaye jaw réew a def. tegal xeer bi yow. fi kenn xaañantew fi li ma wax daal c'est clair. suñu yoon nekk si da ngeen génn daal ma génn kayit gi ngeen xool. ngeen génn. Eh, ñànku ñànku ñànku. ñàkk ooyee jógal jógal te boo boo xoolal boo bàyyi si li ngay def da nga fiy dee léegi yaa may dee jógal jógal eh ñàkk yow ñàkk jógal jógal jógal jógal jógal jógal xoolal xoolal eh ma fii xoolal man la man la sàq mën na mi xam nga bëgg nga lekk nga naan ndaxte depuis boobu ba léegi gis naa ci kër gi lekkuloo jógal jógal jógal jógal jógal xool eh dañ koy lijjanti dañ koy lijjanti bul grève xool lekkal nga naan ci da ngay dee xam nga dee da ngay dee ñu dem suuli la loolu lekk nga naan ba suul waaye li nga bëgg mooy am par la force ci kër gi li nga bëgg mooy am fii sa kër papa la xaaral eh nijaay daa wax ak ñaar boobu ba léegi lekkut naanu defu dara di tëdd ci naaj di tëdd fii ay kër kër xamul. ñaanku jógal la man fan gis naa ko ah. lekkam bëriwut naanam bëriwut. lekkul naanu. waaw duñ ko jox mu bañ duñ ko jox mu suur naa. lu xew. wax naa moom guddi wax maa moom bëccëg laaj naa ko ba sonn defoon naa dafa feebar yóbbu nañ ko l'hôpital nee nañ sawa dara jotu ko léegi lan moo la naqari añaanku dangaa sonn dangaa sonn wooy ma dóor ndomba bi waaw mënatuma ci kër ah, sama doom bi ngay wax moom réglé naa ko dégg na li ma ko wax nee naa ko magam nga loolu la doon nombre bi de. ci kër gi. waaw man ci kër gi. waaw ndax fayen saa kay man kay nag moo ma jaaxal nee daal nee daal Mourou Ndiaye la bëgg mu ñibbi daal. bàyyi ko fi mu toog. nee daal Mour Ndiaye nee na da da koo dóor ndomba gi daal nee na yow yaay togg ceeb yu neex yi toogal mën naa toog waaye Mour Ndiaye la ñu. waaye na mu ne rek. saf na wala ndomba saf na nag ndomba saf na ndomba ah, folo folo folo folo booy bi daal na ñibbi daal ñang booy bi ah, ah. ko gisati. waxuma sax ci fii. àddina hmm. moo ko ci gisati. ah ah ah ah. mooy bu ma ko mooy maanaam bu ma ko sax géntati. ah da nga koy gént. bu ma ko gisati fenn. ndombo la ko dóor ndombo ndombo dafa sef ndombo ci yaram ci yaramam bi. waaw ña nga ko bul pour lan loolu benn deret. ñaata kii sa sa sa sa doom bi jaay la sama sama doom la. mooy bi ma doolee ndombo ba tey dama am hémorroïde. da ngaa ah. hémorroïde hémorroïde. waaw ndombo dafa sef. moom ba ci boppam moo taf. ba dinaa wax ak moom mu dem suba dina xëy. ni ma dem léegi. wa ku wut fa bee tax du mën a di gontu. fan la jaar. bi muy ñëw fan la jaar. boobu suba gi la ñëw. waaw ban heure jot. waaw waaw waaw bàyyi leen may leen ma ba suba ma wutal ko paas. yoru ma paas. waaye ma tudd fii nag. déedéet dama koy wutal paas. damay wut paas damay wut paas mu dem damay wut paas mu dem. na dem waaw damay wut paas. waaw damay wut paas mu dem. na dem. waaw dara maa ngi ñëw. maa ngi ñëw damay wut paas mu dem. na dem na dem damay wut paas. te voie bi li ma gën a métti du ndam bi kese. wax ma. Eh, eh, eh, demal ci biir demal ci biir. gis nga moom demal ci biir yow. gaa yi ñëwal ñëwal. yow réewoo sax da ngay réewantalu sax. dama génn dem. na mooy mu dem dina góor dina xëy suba. na dem léegi dina xëy. waa léegi dina waa bu ma jógee léegi mu dem dina dem. na foofu jóg dem léegi léegi kay léegi na génn dem waaw. na foofu jóg dem na jóg dem. wax mu takk ay bagages wax dama dem dama dem takk ay bagages na takk ay bagages am te fekk ma fii. fii ñoo ko moom na jóg dem. waaw dina dem dina dem. waaw dina ba gaawal li jëntil ma dina génn. dina ba gaawal mu takk bagages am. na génn ci biti. li ngeen bëgg rek laa bëgg man

la ngay xencu ak li lay metti moom yaa ko xam man maa ngi sama néeg ak seen yumpaañ yéen a bokk néeg de li la naqaje moom sa néeg la bu la neexee wax ko de waaw te dëkki góor moom di def yenn yi moom dafa ah, te tamit ko waaye fas yi la fas yi waay waay def nii